dëkk waa Anta Fall. quartier bi mooy ban. quartier bi mooy Ndindi sañ Fall. Ndindi Sëñ Fall waaw. sii ci baaji naar yi. waaw quartier Maysa Mbaye. mbay Maysa Mbaye. waaw fii lañ dëkk. mu mel ne dañoo ñëw fekk leen mu mel ne ndox mi not na kër yi ba mu ñu bëri loru ci ndox mi. wallaahi mën nañoo xam dégâts matériels yi. ma waaw sunu ceeb bi sunu saaku ceeb yi ñu dundee te amuñu doole. frigo yaa ci ndox mi suñu lalu këpp yaa ngi ci ndox mi suñu mat la yaa ci ndox mi. lépp a ngi ci ndox mi lépp yàqu na suñu kër yi dafa fees dell fi dañoo génn mbokki dëkkandoo ñooñu doon génne ak suñu njaboot gi guddi loru nañ ci bu baax a baax ay yëre génnul suñu saaku ceeb bi ñuy dundee génnul dara génnul suñu mat la yaa ngi ne di fee ci biir dara génnul ci guddi taw bi kay ay 4 heures dañoo fanaane taxaw ba bër set ba bër set dañoo fanaane taxaw ba bër ci kaw ndox une ba deux ci bëccëg gi ñu ngi taxaw teem démb am na ci suñu xale yoo xam dañ leen a entré ji hôpital ndax coono coono xuusu xale yi ak roñu bagage yi xale yuuxoo nañ ba sonn ñu yuuxu nag ñun mag ñi tamit ku ñu wàllu. leneen moo na cee xew sant nañ yàlla ginnaaw kenn faatu fi waaye nag euh, ñun ñu fi nekk di góor ñoo xam ne amuñu doole suñu soxna rek bàyyi ci kër yi ah te ñoom itam amuñu doole ñu ngi fii ci ginnaaw la ñu liggéey ci baajinaar yi waaye suñu kër yi nga xamante ni tey moom rek lañ yaakaaroon ci Touba gii maanaam ndox mi nangu na ko lool bay wax dëgg yàlla dañoo abbaani ay kër génn nañ fii ni di abbaani état amuñu sax fu ñu dëkk ba léegi suñu duus si mënatuñ cee dem mënut ñoo sanguwaay lekk yi yàqu na suñu jur gi dee nañ ci biir wax dëgg yàlla sonn nañ lool te ginnaaw yàlla nag sëñ Muntaxa rek lañ ci yaakaar ndax mooy gisaguñu kenn ku ñëw ku ñu vérifier sax gisaguñ ko gisaguñu kenn ku def ci effort gisaguñu kenn ku ñëw dindi ñu am matelas suñ dëkkandoo yi daal ñooy daw ci guddi gi topp ci guddi gi dugg ci ndox yi di yëg yenn matelas yi di génne tekki suuf waaye wax dëgg yàlla day lépp yàqu na muñ bëggee dëgg dëgg rek fii ginnaaw yàlla daal sëñ lañ fiy xaar te moom ci yaakaar courant bi mbaa demul deful dégâts. waaw sant nañ yàlla nag ci loolu. courant bi deful dañoo coupé courant yi ndax euh, taw bi une heure ci guddi la commencé woon ba deux heures ci ba suba ci deux ci bëccëg la taw bi daanaka door arrêté ku ne xam ne taw bi suñu arrêté sant nañ yàlla nag ndax bi muy bu muy taw ci guddi gi lañ di coupé suñu courant ci kàttan yàlla ñoo ngi koy sant yàlla bu baax a baax. ñun nag sonn nañu suñu koñ bi ñëpp dañoo sonn suñu góor ñi liggéey liggéeyatuñu keroog ba mu tawee amul kenn koo xam ne nii togg nga fi añ amul kenn ku fi togg añ ñoo ngi fi sonn nañu suñu doom yi ñii dañ leen a jël rawale leen am na ñoo xam ne nii amuñu kër ndax nit ñi dañ leen a aala aal ba am na ñoo xam ne nii gén kiiw génnuñu ci ndox mi la ñu nekk di ci tëdd di taal garabu yoo ndax depuis ñu am lii ba léegi gisuñu kenn kenn kenn kenn ku ñu dimbali suñu dëkkaale yeeg ñëpp ñoo ngi nii sonn nañu tay nañu suñu doom yi bu ñu saw ci ndox mi la ñuy saw suñu duus yeeg yëpp pël yëpp yëpp yëpp dafa génn àndandoog yëpp xam ne ceeb bi yàqu na ak ceeb bi fi ñu fi ñu jëndoon ceeb ak yëpp dafa féey ci ndox mi dara génn suñu yére yi yëpp dafa yàqu am na suñu dëkkaale yoo xam ne sax ñoo ñëw indil ñu ay yére pour ñu sol ko amuñu benn yére bu ñu sol suñu yére yeeg ceeb beeg dawlin jeeg yëpp am na ñoo xam ne nii seen xar yi dafa dee ak ginaar yeeg yëpp ngeen bay génn aduna bay may njabot gu sew may daw di len jox gis nga li ñu ngi ñaan nak di wor ni ba te gisul nak bam amé batay ba gis nu kenn ko xamni fi fii ko nga wala xool ngol kon nak yaa ni gis nga ko miir yi xar na duus yi ndox la néeg dañuy ngacc di tour amuñu fuñu jëm. ko xamni amo fo jëm nak da ngay tok fi biir ndox mi rek di ngacc di soti kuma jëm ak samay njaboot amuma fu ma day wacc may nuyu seigne Mountakha mbake ak ñëpp si dëkk bi ak njiitu réew mi maa ngi koy wax ne ñun ñun ñoo ngi ni dañoo jaaxle ak suñu njaboot ci ndox mi amuñu fu dëkk suñu ceeb yeeg suñu diw yeeg suñu yëpp ñu ngi si ndox mi ñun nag amuñu fu nu dëkk ci mbedd lañu nekk di toltolaan suñu armoire yëpp yàqu na ak suñu bagage yi ak suñu njaboot di li ñu yëpp a tooy amuñu lenn fu nu jëm ñun nag ñoo ngi sant nag suñu dëkkandoo yi nga xam ni ba lii amee su guddi gi ñoom ñoo jug duñu dimbale duñu roñoo suñu bagage dina dimbale suñu njaboot ndax boobu ñun taluñu lenn nag loolu suñu njaboot. déedéet kenn ñëw dimbali ñu fii mu mosuñoo sax at nii la ñuy def waaye mosuñoo gis ku fi ñëw dimbali ñu si lenn mbaa nga saytuñu si lenn mbaa nga masawuñu si lenn mbaa nga dimbali ñu si dara chaque jour moom lii la ñuy nekkee chaque at nii la ñuy nekkee si ndox yi la ñuy dëkk di jënd ay garabu yoo di wut lu ne di ko def ndax suñu njaboot amuñu fu ñuy toggee wala fu ñuy nekk ñun ñëpp nag dañoo génn nag kenn ku ne wut noo xam ne dañoo dimbali ñu nekk ci mbedd yi ak si garab yi di togg ak suñu njaboot bu guddi jotee ñu dugg ci kër yo ya nga xamné ne amul benn ndox ñu fat ñu ñuy fanaan bu bëccëgee ñu nekkat ci garab yi ñew di togg ak ci mbéddi ñu waroon togg ndax man eh, sama ceeb bi ak sama diwlin bi ak ñun ñi ñëpp kenn ku ne mu ngi ci biir ndox mi sama ceeb ak sama diwlin sama bagage yépp ngi ci biir ndox mi dara génnut amuma kenn nag ku ma dara génnut ñun ma ngi wo wa Touba ci kanam di len xamal ne ak eh, sen maire ak état Sénégal ñoo ngi leen di woo ñu ñëw jàppale ñu parce que ñun alhamdulilah ba alamin bakkan loru fi waaye dund yi fi nekkoon yëpp it amatu fi ndax lépp des na ndox mi te suñu sañoon ñu njëkk ñoo dimbale sax ci dund ba pare ñu door a wax ci ñun nag fu ñuy dugal wala fu ndax wax dëgg yàlla suñu dëkkandoo ñoo amatu fi ndax lépp des ndox mi te suñu sañoon ñu njëkk ñoo dimbale sax ci dund ba pare ñu door a wax ci ñun nag fu ñuy dugal wala fu ñuy fat ndax wax dëgg yàlla suñuy dëkkandoo ñoo ñëw jël ñu fat ñu waaye itam kenn ku nekk xam na ne bët du yen waaye xam na lu bopp attan am na kër yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoo nga fa waaye ñu mais munuñoo bañ ndax amuñu fu ñu jëm wax dëgg yàlla suñu bagage yëpp dañoo des ci ndox ci ndox mi ba tax na daal Abdou Lahad Ka ñoo ngi lay woo di woo état bu Sénégal gisuñu nag kenn ku ñu dimbale boobu ba léegi gisuñu oto bu manque gisuñu benn benn délégué boo xam ne ñëw na fii bokk ci état bi pour contrôler ñu wala mu seet suñu wala mu ñëw ngir dimbaluñ ci dara gisuñu dara ba bële gisuñu dara ñun nag ñoo ngi fi jaaxal nañ lool kenn saytuñu jaaxal nañ trop ba buñ sañoon daal Abdoulaye Tall lu mu mën a def mu indil ñu oto yu manque lii wala itam ñu indil ñu dund ba xam ne suñu dund am nañ sax lu ñuy dund dund moom amatu fi ndax dund yëpp ci ndox mi des ndax mbir mi guddi la am te ñun ñëpp boobu dañoo tiit ba mën a yenu suñuy doom pour génne ko ndox mi xale yu ndaw yi ñu leen doon yenu di génn ndox mi suñu dëkkandoo yi ñëw itam dimbali ñoo leen di sant di leen gërëm ndax ñoom itam bàyyiwuñu yoon ba tax naa suñu sañoon état Sénégal ñu ñëw taxaw ci jàpp ci dimbali ñu wutal ñu lu koy manque wala ñu wutal ñu fu ñu nekk wasalaamaaleykum